waaw ñu ngi leen di delloo ziar ñu ngi leen di delloo bu baax a baax Seydou Diouf Seydou Diouf Njaanjaay Olof waaw ci Njaanjaay Olof waaw ngeen organisé woon lamb ji mu doonoon quatre jours j'espère tey mu doon jeex de finale waaw waaw balaa ñuy dugg si dugg si nag yaag yooyu ban ban ban sentiment moo leen animé tey kontaan nañ trop mhm. kontaan nañ trop macha allah macha allah kontaan nañ fu mu ne nii sax man sama xol daa fees dama kontaan bo vraiment macha allah daal li ngeen doon séntu ci làmb ji gis ngeen ko. gis nañ ko bu baax gis nañ si suñu bopp animation ci wàllum bëre ci wàllum culture lépp ñëw vraiment làmb moom animé nañ ko woy nañ ko tëgg nañ ko mhm. bëre nañ ko aussi wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax macha allah ñu ñëw fi ci kër yi ngeen ñuy présenté seen nag yi. Mhm. nag yi ñoo nekk nii j'espère. waaw mooy nagu poids léger ah. waaw mooy ñii ñooy nagu poids léger waaw ah? ñaari waa Euh, vainqueur yi mooy njëkk taan waaw vainqueur bi mooy njëkk a tànn. ñoo ngi woon ci nag yi ah. waaw ñaari nag yi ngeen tegal poids léger waaw ñaari nag yi la waaw. moo nekk nii ah. léegi ñaari nag yi nu muy demee. Euh, vainqueur bi mooy njëkk jël. ah vainqueur bi a jël. waaw mooy njëkk a jël waaw. ah njëkk a <laughs> jël. waaw ah, di kaay boo jël rek baax na Etienne Diogoye Diouf mooy vainqueur bi moo noonu. waaw moom mooy vainqueur bi. waaw moom mooy njëkk a jël. Etienne ah Etienne Etienne léegi léegi yow léegi nan nga nan nga dundee làmb ji moom mooy loolu rek. chaque jour am nga satisfaction ci làmb ji. no vraiment chaque jour dal ñu ngi ci làmb yi quoi. vraiment compétit rek. Mhm. vraiment kontaan nañ bu baax. dëgg la mën nañu xam bii mooy sa ñaata final rek. bon bii fii mooy sama troisième final. troisième final saison bi ren. nga jël ñaata. fii mooy fii laa njëkk waaw ñaari da nga koo ñàkk waaw ah, décourage mbër ok merci waaw ak leen tegal de loo ci wax ah vraiment baax na de hmm. waaw ah, tànn goo naan baax na ah man kay lu may jël moom xam nga ne bii laay jël <laughs> xam nga ne bii laay jël de ah vraiment waaw noonu la demee macha allah bii laay la ngay wax waa Njaay ñu organiser lamb non kontaan ci ñoom rek hmm. vraiment maa ngi nii di door a euh, ñëw fii secteur bi nii quoi hmm. vraiment xaw ma secteur bi non xanaa kon kontaan naa den rek mhm. waa mojo kontaan naa waa Niakhar aussi waa Modio Sakho xanaa dañ ñaan itam vraiment kontaan am na ok merci beaucoup waay. ana keneen ki finaliste moo ngi sunu ginnaaw général acca demal ne. général Diarra. waaw waaw Diarra Saalum wala Diarra bële. Diarra fële. Diouroup côté Diouroup ba. waaw nga ñëw ci Njaanjaay ah waaw gaano kontaan rek ah jega kontaante a paax oh, bilaay walaay hmm, kuma lay ka foog Njaanjaay ah, mhm. dama yo ndam rek ane ino man jom soom i njegu to jom i yaakaaru bilaay walaay jom soom i ñoowa i de ken mbina moom wax dëgg tig paax a ref hmm. i de jega a paax a paax bilaay walaay normal maaga yi i de waaw bonne chance bonne chance. waaw. jaajëf waay. ñaari mbër ñaari finalistes yi maa ngi leen di félicité bu baax a baax. te ne leen li ngeen fi am ni yal na leen jig quoi ay yeneen drapeau euh, dooleeku ci waaw kontaan nañ ci yéen vraiment ñu daanu tamit ñu ngi leen di encourager bu baax a baax a baax te ne leen aduna noonu la waaw lambu yaa ngi ci kanam quoi jeexaguñu vraiment yéen tamit kontaan nañ ci yéen amuñ seen fee quoi Mbulum TV yow moom vraiment yow ay doomi ndey lañ waaw. kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax Général TV ah bëggee naa la bu baax kontaan nañ bu baax yéen tamit ah, ah. merci beaucoup ah, vraiment ngeen xam loolu ngeen xam ne tey jii ñun dañu war a jox suñ gëdd ci làmb waaw yaa ngi dégg waaw waaw kenn fayuñu déedéet vraiment lu lu dul loo xamante ne nit daf ko yëkkati mooy ñu vraiment dañu war a jox suñ gëdd vraiment yaa raison làmb mënul dem sans ñun wax dëgg wax nga dëgg làmb mënul dem sans les TV TV wax nga dëgg kon loolu nañ ci bàyyi xel surtout nag maa ngi leen lancé benn message surtout ñi ngeen dëkkal gis nga nit mhm. day gëm li mu am pap ngeen dëkkal moom benn problème waaw dëkkal nit ba pare di ko jéegi di dem feneen loolu te yéen tamit gis naa ne mm-hmm. a ko moom yàlla moom moo xam li bëgg ko yàlla defal vraiment ñun amuñu fayam parce que bés bu jàppee lamu bi ba léegi chaque jour man damay lire ay statut mm-hmm. mais chaque jour damay gis mu ko statut vraiment jàpp na ci bu baax a baax a baax ci moom bu baax yàlla la yàlla jàppale yàlla na yàlla jàppale jàppale yéen ñaar ñëpp waaw merci beaucoup ok jaajëf champion ah. jaajëf